waxtaan yi ak vidéo yi nga xam ne mooy am ci Ali Imran TV da ngeen di bés fii nga xam ne moom lañ bind sabone ba noppi bañ a fàtte laal kolos bi Ali Imran TV mooy chaîne bi nga xam ne mooy leen di jàngal seen diine jëleen yee ci mbirum àdduna asalaamaaleykum wa rahmatullah waa tey ñu ngi fii Sareso ak professeur Djibi ak Oustaz Alioune sal ak Oustaz Wadane ak Oustaz Fallou Mbacké ñu fas yéene ñëw fii def benn conférence incha allah professeur Djibi Diakhaté ak sëriñ Ibrahima Ndiaye ak suñu waa daan incha allah kon ñu fas dugg ci saal bi kanam incha allah. mbooloo mi asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. Euh, jërëjëf sëñ Moustapha ci présentation bu rafet bi nga xam ne def ko ba léegi. italien no nag dégguma ci dara waaye am na lenn lu ma ci <laughs> maa ngi gërëm association bi nga xam ne ñoom ñoo organisé lu mel nii je crois lu am solo la waxtaan lu am solo la jëm ci famille dafay wax ni waxtaan bi mënoon nañu ko jël def ko Sénégal dafay mel ni à peu près même problème yi rek moom la ñuy dem di waxtaanee ko mënoon nga ko jël yóbbu ko Amérique boo dee demit même problème yi nga fay fekk dinaa ci ñëw léegi dañu toll ci période boo xam ne dañuy wax crise de famille maanaam famille ci boppam adduna yëpp. la wër moom moo commencé am ay jafe-jafe moom moo moom moo am commencé am ay jafe-jafe loolu nañ ko nañ ko làmbatu bi naam lañ ci wax euh, damay donc tàmbalee remercier bu baax a baax a baax a baax gërëm bu baax a baax a baax association bi yëpp di gërëm aussi suñu mbokk italiens yi nga xam ne yaatal nañu suñu mbokk sénégalais yi fi nekk liggéey di fi yëngu di leen gërëm bu baax a baax ci taxawaay boobu nga xam ne taxaw nañu ñu may ma rek ma gërëm soxna Ndeye Marie parce que boobu ba léegi maa ngi nekk këram mu may toppatoo bu baax a baax a baax ma gërëm tamit soxna Koudia Ndiaye Diop moom itam kon ay soxna dong laa fi gërëm euh, mu mel ni kon lu xew rek góor ñi ñoo doy c'est pas parce dañ maa corrompre waaye daal gërëm naa leen bu baax a baax yaa Oustaz euh, dafa am benn borom xam-xam bu tudd Sénégal ma def ko waaw war na baax waaw sëñ Moustapha nag moom sama rakk la doon teg léegi moustache beeg sikkim bi sa sama rakk la maag magam ñu ñëwaat foofu ca Dakar gisee moom daanaka bi ñu doon yaaw saas euh, c'est euh, psychologue bi nga xam ni moom moo njëkk a intervenir muy monsieur Tangueti yi muy jeexal mi ngi tudd benn philosophe bu tudd Sénèque mu ni philosophe boobu dafa indi lu rëy jëmale ko ci mbirum kër gi Sénégal boobu dafa bokkoon ci benn école bu ñuy wax stoïcisme maanaam ci mbirum philosophie ñoom la ñu tuddee woon les stoïciens ñoom Sénégal école boobu boo ko ngi tudd Zénon de Cicéron moom moo jiite woon école bu mel noonu xam nga ñoom lan la ñuy jàngal nee nañ lu xew ci àdduna bi yàlla moo ko waral ñooñu ñuy jàngal mooy ci àdduna bi yàllaa ko ba pare ñu tekki ne yàlla ne moom amul dëgg. bu nekkee ku góor la ñëw di ñaan soxla moom du ko góor ki moom moo intéressé nit ñi mais ca famille ba mu soqee ko moom moo intéressé nit fan la bokk bu ñu xamee fi fi mu bokk rek dinañu xam ni kii kat ah fa mu jógee de Oustaz Aliou Sall fa la bokk te Oustaz Aliou Sall xam nañu taxawaayam ci penc bi moom Oustaz Aliou boobu xam nañ ñu fa mu jógee kon nag mën nañoo am yaakaar mën nañu am qualité ci famille boobu mën nañu am qualité ci famille boobu ci ci ci kooku ca famille ba mu jógee ci askan ba mu jógee moom moo tax ñu war ko wóolu donc dañ daan jël nit toujours delloo ko ci ab askan bi delloo ko ci ab famille bu nekk famille boo xam ne jàppale ko moo ko defoon ñi nga xam ne dañ doon doon tuddee géwël bu fekkee jàng nga téere yi nga xam ne Jibril Tamsir ñaan moom moo ko bind mu tudd Sunjata wala Papa Bande dafa am ci benn géwél bu tudd Balla Baseke Balla Baseke boobu dafa ñëw daal ni mbooloo mi ñëw leen dafa am lu may waxtaan ñëpp daal di mu ni nag balaa may tàmbalee waxtaan fa ma wax leen ki ma jur bi ma waxee bu ma leen waxee ki ma jur ba pare dinaa wax ki ma jur kooku kan moo ko jur moom itam moom moom ko ko jur kan ñu waa loolu yëpp lu tax nga koy wax parce que bu ma waxee lu ñaaw da dul ci man kese dafay topp sama jiir yëpp moom Balla Fessé nee na bu ma waxee lu ñaaw du yem ci man kese day topp sama jiir ba pare nag sama njaboot yi nga xam ne ñoom laay meññ ñoom it da leen di topp ba abadan dañ naan leen seen baay moo fi waxoon lii seen maam moo fi waxoon lii kon loolu nag dafa mel ni yoo xam ne mi ngi sëñ Moussa dafa mel ni mi ngi jóge ci suñu dënk kon pour wax la rek ni famille dafa am solo parce que boo defee lu baax sa famille yëpp lay doon waaye tamit boo defee safaan sa famille yëpp lay doon mu nekkoon loo xam ne dafa amoon solo lool euh, famille ñu bindoo woon ko noonu euh, dama bëgg a wax benn affaire boo xam ne bëgg naa tuuti rek ñu ñu ñu xaw cee bàyyi suñu xel surtout jigéen ñi ñi nga xam ni seen xam-xam dafa màcc ci xelu doomu aadama daf ci am kenn ku tudd Sigmund Freud nee na nit ki ba muy judd ba ba muy am fukki at ak juróom-ñett bu baax ba am fukki at ak dafa am fu muy jaar ba muy judd ba ba muy am fukki at ak juróom-ñett bu njëkk bi mi ngi tàmbalee ba muy egsi ci àdduna ba ba muy am fukki weer ak juróom-ñett ba 18 mois. donc kii juddu ci àdduna ba am fukki weer ak juróom-ñett nee na kooka xale boobu yiir boobu lépp lu mu bëgg ci àdduna bi ci gémmiñ gi la ne boo ko defoon lu muy bëgg mooy naam loo ko jox mu jëmale ko ci gémmiñ gi maanaam gémmiñ gi daal moom mooy mooy yëg-yëgam ci lay amee yëg-yëg ci lay amee bànneex ci gémmiñ gi léegi nag attention pour lu tax may wax ci mi ngi tuddoon innocent ñu daal di koy di ko wax inno ino bi bi mu amee ñaari at ci la ay yooyu juróom génn àdduna muy dund moom kese donc ñaari at moo nekk ci phase boobu ma lay wax diggante fukki weer ak juróom-ñetti ak ñetti at alors comme période boobu amul ñu bu baax a baax moo tax bu mu màggee mu soxalee ni mu soxalee donc attention fukki weer ak juróom-ñett ak ñetti at il faut ñu toppatoo xale bi bu baax a baax li tàmbalee ñetti at maintenant ba yegg ñetti at maanaam benn at ñetti at ba ñetti at. foofu dafa am lu ñuy wax complex d'Œdip complexe d'Œdip boobu mooy xale bi jigéen bi baayam lay gën a jege que yaayam xale bu jigéen bi yaayam lay gën a jege que baayam xale bi yaayam lay gën a jege que baayam loolu benn at dong lay doon diggante ñetti at ak ñeenti at bu ñu demee ba ñeenti at loolu bàyyi leen ci xel bu baax bu ñu demee ba ñeenti at ba fukki at léegi xale bu góor bi day jël baayam def ko royuwaay li li baayam di def noonu lay bëgg di doxale xale bu góor bi xale bu jigéen bi ñeenti at ba fukki at ni yaayam di def noonu lay bëgg def day commencé di toppandoo yaay ji boo ko defoon xale yi am ñeenti at yu góor yi lu ñuy fo dañuy fo di def comme ni seen bàyyi liggéey bu fekkee seen bàyyi policier la wala gendarme bi demee noonu dañuy bëgg di fooye ay ak bi demee bu fekkee ni seen seen bàyyi day jaay commerçant la dañuy fo di mel ni ñu ngi jaay ñoom tam boo xoolee xale bu jigéen bi ñoom tamit bu ñu commencé ñeenti at ña ngay fo di toggal di togg comme seen yaay bu nekkee di dem naan dañuy dem ca dañuy dem marché bi jël suuf naan dañuy togg ak ñu dem noonu am seen doomu tubaab diggante ñeenti at ak fukki at xale bi dafay bëgg xale bu góor bi day bëgg a toppandoo bàyyam xale bu jigéen bi day bëgg a toppandoo yaayam loolu la ñuy wax identification attention léegi xale bu góor bi ñeenti at la am dafa bëgg a toppandoo bàyyam te bàyyi bi nekk dafa bëgg a toppandoo bàyyi ñeenti ak xale bu góor day bëgg a toppandoo bàyyi te bàyyi bi nekk fi wala sëñ bi tas na xale bi ku jigéen ci mooy mooy mooy mooy yar xale bu góor bi moom lañ ko dégg xam nga lan mooy risque bi moo tax borom ñaari pour ma ngay tàmbalee bu nit bi amee ñeenti at donc attention nañ ci def naan mën na mën na mën na jógee foofu mën na jóge ci bàyyi ji mi ngi ci kër gi absenté wul mi ngi ci kër gi waaye nekku fa xam nga am na ñi nga xam ne ñu ngi ci kër gi mais doo leen gis duñ ko nekk donc bàyyi nañu def attention ñeenti at xale bu góor bi dafa soxla di gis xale ndaw bu góor bi dafa soxla di gis bàyyam dafa war a gën a nekk ci kër gi sinon attention mën na am gis bi ci des moom mooy bàyyi bi niñ ci kër gi waaye yenn histoire yi parce que euh, dañuy dem ci écouté l'histoire de Balla Kossé bi nga xam ne moo doon parce que ñenn historien yi dañu géewul suñu jota la woon mais ñenn ñi dañu suñu jota la woon ndax moo ci moo dañu jëli fi nga xam ne bàyyi suñu jota bàyyi woon na fi tax wala bu tollee bi wala nekk pouvoir bi mu wax mën a jóg mooy bis bu muy dem di daaneel di ah, mu mën a sababu di di yokkul oustaz li may mujj rek mooy li ñuy wax ci communication ci biir famille communication ci diggante waajur ak doom communication ci diggante yu way seet yi waxante nu ñuy waxante ci kanam gone yi nu ñuy waxante bàyyi de ak xale yi parce que ko indi ci njëriñ tey bu ñu ñëwee ci njëriñ rek dañuy gis loo xam ne dafa am solo ba ni comme indi nañ ko loolu boobu bu mu ci mën a doon war nañ ko mën a tegaat war ci mën a waxtaanaat ñu bëggoon ba danaa def bu dee dañuy jàppaat ba dañ gis wala bu fekkee dañ koy jotaat ci kële yónnee ne ko ñu jàpp nit yi asalaamaaleykum wa rahmatulah maanaam pour ñu gën a gaaw a jox daal di leen yëwee ba nga jox Moustapha am nañu communication bu mu donc ñu jox Makhtar Kane mu ne joxe na gan sëñ ñoo ngi ñuy ñi fi teew ñëpp di leen sant di am mbégte ak yaakaar ñu yokk ci communauté bi nga xam ne ci lañu bokk muy communauté sénégalaise raw ci nekk gox bii ñuy wax association Vallée euh, Vallée ñi ngeen dajale fii tey ci waxtaan dafa ñi ngeen dajale ci waxtaan dafa indi macha allah loo xamee ni ay yaakaar la ak ay nësër. yomb bi ni ko dajale tey wut ñu ko man itam ñu ñëw ñu ko leeral nit ñi ndax ku toog fii rek gis nga ci diggante maa ngi doore tey professeur Tanguy la migration moltissima però infatti dire vorrei fare una domanda penso che potrebbe essere una contribuzione vostra a rapporto al processo di integrazione e di educazione dei nostri figli. Perché abbiamo questo problema della rinascibilità che i nostri figli, come lo dico sempre, sono figli di immigrati, ma sono figli di cultura e educazione italiana. Dunque abbiamo questo problema per portare un'integrazione interna in famiglia per poter gestire questo fenomeno. Perciò faccio una domanda proprio all'immigrazione per sapere esattamente è un problema o un fenomeno. So che dipende dal lato dove ci ma mi veramente avere un vostro parere per rapporto a questa situazione. bu loolu weesoo damay dellu si ci professeur Djibi Diakhaté dafa ci biir waxam sànq dafa am fu mu dugg tudd ay borom xam-xam yu bari am na ci koo xam ni dafa dafa dafa lii ñuy def bu ko wax daf ciy def bu bari bu ci mën ko ci diggante boo xamee ni الحمد لله الذي الحمد لله الذي أغناني وأعزني بتلاوة القرآن ثم الصلاة على النبي المصطفى خير البرايا من بني عدنان يا طالبا سبل النجاة وراغبا حفظ القرآن بلهفة وتفاني إني أسوق موضحا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 احفظ ثلاثة أسطر مع كل فرض لا تكن بالوالي مجموعها هي عشرة مع خمسة في كل يوم باسم ريان مجموعها في ستة يا صاحبي تسعون سطرا وضحت ببيان في سابع الأيام راجع ما مضى لتثبت المحفوظ في رسخان إن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 waxtaan yi ak vidéo yi nga xam ne mooy am ci Ali Imran TV da ngeen di bés fii nga xam ni moom lañ bind sabone ba noppi bañ a fàtte laal kolos bi Ali Imran mooy seen bi nga xam ne moo leen di jàngal seen diine jëleen yee ci mbirum àdduna